alors la revue de la presse de ce matin ñu tàmbali ko ak l'observateur yéeni kay groupe Futur Média moomee la ñuy euh, dooree ak itam Guèye Dany wi nga xam ne mi ngi ci euh, nataal wi moom Bougane xam nga ne itam ci la jamono mi ngi ci loxo yoon moom itam dana am lante ak waat euh, wàlluk yoon fanweeri fan ci weeru octobre yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ci lëndëm wala leer ci guddi mbaa bëccëg lu mu ci mënti doon moom Bougane Guèye Dany ma nga ca diagnostic d'une stratégie politique suicidaire la rek daal wàllu politique ba tey ak Déthié Fall mi nga xam ne nag euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko dalal na ko ñu amat waxtaan wu yaatu ci seen biir ab conférence de presse boo xamante ni itam Déthié Fall dina ko amal ngir tàggatoog Barthélémy Diaz ak ñi mu jotoon àndal euh, ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu politique mi ngi ci li nga xam ne moom moo di yéeni kaay yi wàllu politique ci page cinq bu l'Observateur gis nga ci ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba jano bi mu doon amal ak way taskatu xibaar yi ni ki démb ragg na ak deram ba mu set te itam daal di weddi bépp tuuma woo xamante ni eh, teg nañu ko ci ak ndoddam benn par benn daa eh, daañu dikkaat ci li nga xam ne nag eh, moom la doon addu ñu waxtaanee wàllu dëkkuwaay sa domaine mu mel ni itam permis de construction woo xamante ni nag moom mooy beneen décision bu yees boo xamante ni gouvernement bu Sénégal daal dina koy jël ñu waxtaanee lu ñeel wàllu traite personne ak itam réseau mafia la folle histoire de la séquestration de vingt-deux étrangers dénombré dont onze Guinéens à Dakar page six bu l'Observateur dikkaat na ci beneen page bu dikkaat ci leneen mu di page huit mbirum Adja Diallo ba muy am fukki at ak juróom-ñett. na mu meloon ci aw melokaan noonee la mel ba tey bi mu làqee lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñett moom Adja Diallo ba tey mi ngi intact yéen bi moo gisee nu ni mel ginnaaw l'observateur beneen bi yéen kaay ñu ñëw ci enquête yéen face à face inédit xamante ni itam moom njiital Pastef Ousmane Sonko mi ngi koy sàkkoo ci ki nga xam ne moom moo di amadu Ba ab waxtaan woo xamante ni daañu ko amal ci pénc mi ngir daal di waxtaanee li nga xam ne moom moo di tolluwaay réew mi fii ci Sénégal jenn ba ñu ñëw ci le quotidien attaque contre le pouvoir Amadou baax moom itam di ki démb xam nga ne luppul euh, benn yoon li nga xam ne nag ñoom ñoo fiitee ci mouvance présidentielle lu soxla itam euh, vision 2050 euh, bi bokk na ci loo xamante ni waxtaanu na ko maanaam état continuité la bokk na ci kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko vision bu ni mel méngoo na ak li nga xam ne moom moo di PSE moom Barthélémy Diaz itam yëkkati na ay kàddu ca diwaan bu Tambacounda la mu xam le moom moo di nag moom Bougane Gueye Dany lépp lu ñu ko toppee mi ngi soxal wàllu euh, prise d'otage ay kàddu la yu mu yëkkati euh, moom Dias. le soleil yu euh, transport public xam nga itam njiit bu réew bu Sénégal taxawaay wi nga xam ne daal na koy am un secteur en de réinvention lu nu mel moom la rek daal di addu moom président Bassirou Diomaye Faye lu ñu tëggaat amalaat ko fii ci réew bu Sénégal bu ko defee mu gën a ñoom. libération libération di kat bu baax a baax ci redressement bu ñaari milliards yu tombal juróom ñaar mu moom la ñu notifié ab entreprise allemande wile mu mel ni nag fisc euh, le fisc euh, Accul Gof GmbH Enco mu mel ni itam ay koppar yoo xamante ni euh, ñoom la ñu teg ca seen ak ndodd lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di libération liberation ak itam moom Déthié Fall mi nga xam ne mi ngi waajal bu baax a baax fekki ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany la rek daal di xëy fësal mu mel ni itam wàllu démocratie fii ci réew bu Sénégal sox woo xamante ni itam amal nañu ko mel ni dañ koo salfaañe ginnaaw itam euh, bi ñu ko jàppee moom njiital gëm sa bopp euh, Walf Quotidien ñaar ñi lay nga xam ne kenn ki mi ngi ca Maroc kenn ki ma nga ca Qatar moom président Macky Sall ak itam euh, Karim Meïssa Wade ñoom ñaar fa ñu toog la ñu toog di bind wala bokk ñuy addu jëmale ci wàllu politique bi fii ci réew bu Sénégal Dieynaba Seydou Les Échos dikkaat bu baax a baax ci ki war a wutu Alioune Cissé ci bopp équipe nationale bu Sénégal moom maître Augustin Senghor itam ma ngay xàllal yoon Hervé Renard ndax jàpp na ne moom itam bokk na ci réew bu Sénégal ba tax na itam war na cee mën a am aw pàcc. ñu ñëw ci laas. laas di kat ba tey ak Bougane Gueye Dany ca mag bu Tambacounda mu mel ni itam ma nga amalante ak wàlluk yoon. Vox Populi keneen ku amalante ak wàlluk yoon offense au chef de l'État la ñu ko doon toppee moom Amath Suzanne Camara may nañu ko li nga xam ne nag moom moo di bàyyit nëgëndiku mu ñibbi ca ak njabootam Amadou Ba ma nga ca wet ga moom Ousmane Sonko itam ak la moom moo di Amadou mu di aw penco. xëccoo woo xamante ni nag daañu ko amal ci penc bi euh, source a dikkaat ba tey ak Amadou Ba kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci Ousmane Sonko ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ñoñam lu ñeel ancien premier ministre wile nga xam ne waxtaane na lu bëri rawatina wàllu koom euh, fii ci réew bu Sénégal Dieynaba Seydou Ba ñu ñëw ci le témoin le témoin dikkaat ba tey ak kàddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati tënk nañu ko ci lu toll ci ñeenti poñ yoo xamante ni témoin dikkaat na ci bu baax a baax wàllu législative yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre accusation jëm ci wàlluk li nga xam ne moom moo di enrichissement jëm ci wàlluk manipulation ak itam statistique loolu lépp bokk na ci loo xamante ni waxtaane na ko ci ndaje bi mu doon amal ak way taskatu xibaar yi ah, Sud Quotidien ak itam lu soxal njàng mi ak njàngale mi rawatina wu kawe mi université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru aw jàmmarloo buñ doon nemmeeku ci diggante étudiants yi ak itam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ah, way takk der yi waxtaane nañuy également li nga xam ne nag moom moo di ah, grève wu SAES jëwriñ ji nga xam ne la woowee moom docteur Abdourahmane Diouf euh, daal dinay xam rek daañu amal aw publication wu décret wi ñeel li nga xam ne nag moom moo di euh, retraite wu enseignant yi ak leneen ci loo xamante ni euh, bokk na ci ay tombal waaye ñu àddu ci une rentrée sous woo xamante ni yéenekaay wi daal na koy xaar record la ñuy des ak itam wàllu tàggat yaram mu mel ni nag Ligue des champions Monaco étoile rouge ni ki tey la ñuy xaar lu ni mel bu 16h45 jotee Chérif Ndiaye défi Lamine Camara lu ni mel nataal itam mi ngi ci kaw lu soxal maître Augustin euh, Senghor euh, président bu fédération sénégalaise bu euh, football waxtaanee na lu soxal itam kii war a wutu ci Cissé Pape caw à toutes ses chances maanaam euh, kaddu yoo xamante ni yëkkati na ko ci page cinq beneen page bu àddu ci leneen mu fubal ko tefes gi euh, beach soccer ak kaan wi mu mel ni nag euh, Sénégal Mozambique tey bu 13h30 jotee maanaam benn waxtu bu toftalee fanweeri simili mu mel ni tam wàlluk bokk na ci loo xamante ni waxtaane nañu ko ak bombardier moom B52 bu Mbour kaddu yi nga xam ne itam yëkkati na ko di addu ki nga xam ne moom moo di Modou Lo site bi qui peut et eh bien le mettre euh, kaw kàddu la yoo xamante ni yëkkati na ko euh, ba Seydou Ba li mooy pacc wu njëkk yu ñeel yéen kaay xëy fësal fan la ñuy taxaw. merci beaucoup euh, Cheikh Diop tey nag yéen kaay yi maanaam information yi vraiment.